bismillah barkeb Sëriñ Tuuba ñu ngi ci xaajub juróom-ñaareel bi ci ñaar fukk bi ak juróom-ñett sëriñ bi xaada lahoo allahu maxtaar lahoo nee na dee leen wakiirlu ci yàlla subhaanahu wa taala te koy ragal tey dee la nekk fa alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na nee na ku bëgg a doon ki gën a dëgër ci nit ñi dangay ngay wakiirlu ci yàlla subhaanahu wa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 tey may képp ku leen mokkal la mu bëgg te doon mbégum ñi am kóolute tey ngërëmul yàlla subhanahu wa taala ci ngëneelam maa ngi ñaan yitam waxtu nekk sunu boroom di julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama loolu mi ngi ci xatu ñeen fukk ci diwaanu diyaafatil xuddus wallahu aalam sëriñ bi xaada lahoo laahu bi mu tàmbalee daa julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi ñaan ci darajaam xaraf yi muy bëgg a bind bokk ci bunt yiw ak njekk daa di sant yàlla subhanahu wa taala mi setal ay xol ci alquran ak hadis di ci takkaayal xol yi mu bëgg faaw ginnaaw bi mu waxee lii la tàmbali ni sinu boroom mi ngi fi képp kuy wax hadis bii man kaana yoominu ba hadis ba jeex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 te bokk ci ñuy bég bu ñu taseeg moom mooy boroom mbindee fi yépp yal na nu ko may ci darajay yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama subhana rabbika rabbil wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loolu mi ci fukk ak ñeent ci diwaanu diyaafatil quddus wallahu alam ñi ñëw ci fanweer bi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 ngistal mooy jublu ci mbir lu dul yàlla subhanahu wa waaye loo xam ni danga nga ci jublu jëmmi yàlla subhanahu wa ak topp ndigalam ci booli xoli julli ñi loolu ñaari sellal lay doon fay yàlla subhanahu wa taala mii xam li ci xol maa ngi leen di dénk ngeen di ami teggin ak niti adduna yi di mu daaranteeg ñoom di leen gërëmloo ci loo xam ni du merloo sunu borom subhanahu wa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 li tax ma wax ko sunu boroom dama may loo xam ni dama ko ci sant waaye duma ko tudd subhana rabbika rabbil xissati ama yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loolu mi ngi ci xatu ñeen fukk ak juróom ñeent diwaanu diyaafatul quddus sëriñ bi xaadalahu allahu maxtaaralahu daa muslu ci saytaane ni mu ko baaxoo musloo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 illa billahi al-ali al-asim loolu ci xatu juróom fukk ak juróom diwaanu diyaafatul quddus wallahu aalam sëriñ bi xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo bi mu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi wa lii la wax gis naa sa bataaxel bi dégg naa itam li ngi ci wax yal na la yàlla subhanahu wa taala fay aw yiw musalla ci musal la ci lor adduna ak ci daraja yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama yow sama mbokk mu yiw mu laa mi te sopp ma yal na la yàlla subhanahu wa taala dëgëral dimbali la li may laaj ndax ab murid bu jëlee ci ab sëriñ gis baneen sëriñ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 ci ab sëriñ akub imaam junaydu radiallahu taala anhu nee na sunu xam-xam bi ci alxuraan la tegu ak sunna su yonante bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi wa sallam ku dul diglu hadis yi du toog ak boroom xam-xam yi tey yaru ci sëriñ si ku ko topp mu yàq la ibnu ataillahi radiallahu taala anhu nee na bul toog ak xam ni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 ndax sopp xaritu bi yàlla subhanahu wa taala li muy tegtale mooy sopp yàlla subhanahu wa taala sunu borom nee na inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquun lahum albushra fi lxayaati addunya wa fi laaxira laa tabdila li kalimati llah dhalika huwa alfawzu alazim ba tey nee na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 yàllaa xam waaye ma jàpp ni da cee jublu boppam ak boroom këram di wax waxinu wu matale ngir suturaal boppam ak suñu muri di ci setal seeni xol fi mu ne xol bu sellee lépp day daa di mën a am moo xam ay leer la wara ay mbóot wala bànneexu déeyaaleeg yàlla subhanahu wa taala li mu bëgg wax kon moo di suñuy xol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 ba tey ñëw na ci téere boobu loo xam ni ibnu zafar moo ko nettali rahimahullahu taala anhu nee na abu yasidin albustamiyu radiallahu taala anhu ba muy jàng ca daara ba toll yaa ayuhal musammilu xumi layla ilaa xalilan daa wax baayam ni ko yàlla subhanahu wa taala ku muy waxal ni mu ni ko muhammad lay wax sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa